Allah, ko alxuraan ay ni ñuy jubal alxuraan ay ni ñuy musal alxuraan ay ni ñuy bégal guddi jullit na fonk ko sant na muccal nañu koy jàng tey jëfe ko su liggéey bi nag daal di jàll wéy ci tarif alxuraan bi bu ko defee ñuy wootu tànk bu ñuy wax sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Fallou Ndiaye bu ko defee nga daal di ñëw daal ñuy indil nag benn ci ayatul xuraan yi Diop mu gën leen tari leen ci alxuraan karim jërëjëf Serigne Fallou Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu waaw bismillah nga indi ñu leen kon ci ayatul quraan yi bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطعنا الحقبة وما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة jërëjëf soxna mi Kolle ci nuyoo bu am solo boobu gannaaw nuyoo bi nag ñuy sàpp ngay nit ñi leen ci ayatul xuraan ya bismillah ko defee nga wàcc say waajur jox la sa kado ñuy wootu tànk bu tudd soxna nday kodd luum soxna nday kodd luum man ngaa daal di yéeg ngay diglu lenn ci ayatul xuraan ya bu ko defee buñ noppee ñu ñëw ba ñëw soxna nday jóob bismillah soxna nday kodd kon man ngaa daal di nuyoo assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tudd Serigne Moussa Loum sama waajur bu jigéen ma ngi tudd Soxna Mbense maa ngi jànge daara internat xidmatu xadim bu Serigne Mambaara Mbàkke Tuuba Toobi Jóob ma bëggoon leen a leen ci alquraanu karim jërëjëf soxna Ndeye Koto ci nuyoo bu am solo boobu gannaaw nuyoo bi nag ñu bëggoon nga indi ñu lenn ci ayatul quraan bismillah sadaqallaahul aziim baarakallaahu fiika soxna Ndeye ci alxuraanul karim yu am jooju ñu ngi sàkku ci waajuram mu daal koy jox xadoom soxna Ndeye nga wàcc bu ko defee sa waajur mën laa jox sab neexal jërëjëf yal na la yàlla sàmm boole la ci soxna yi nga xam ne danañ liggéeyal lislaam lu fés jërëjëf ci alxuraanul karim ju tedd jooju bu ko defee dañuy wënoon wax ne sëriñ baa ngi koy def ci la bokk ndax ñii toog ñii ñëpp ñi leen jàngal ci daara ji lañ jàngee ba mokkal wëlbatiku ba jàngalaat ñeneen bañ mokkal ñoo toog nii ci kaw loolu it lu ama lu ama am solo la bu ko defee soxna Ndeye Diop nga daal di nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi tudd soxna Ndeye Diop. dëkk Tobbi Diop sama waay juru góor mi ngi tudd Serigne Mor Diop sama waay wayjuru jigéen mi ngi tudd Soxna Faatu Diop maa ngi jàngee daaray internat xidmatul xaddim bu Serigne Maam Baara Mbàkke Touba bi Diop ma bëggoon leen lenn si alquraanul karim jërëjëf Soxna Ndey Diop ci nuyoo bu matale boobu boo defee bismillah nga indil ñu lenn ci ayatul quraaniya bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز العميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخر ويصد يشاء وهو العزيز الحكيم sadaqallahul azim barakallahu fiiki yaa soxna Ndey Jóob ci ayaat yu am solo yooyu waaye duñu la bàyyi ndax yow danga mokkal alxuraanul karim moom dangaa mokkal alxuraanul karim nag dangay xoolaat ci kaamil bi fu la soob rek nga daal di fay ñëw ñu déglu la bismillah شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وينذر العذبين أحشال ما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى sadaqallaahul aziim baarakallaahu yu am solo yooyu nga ñuy indil ijtabaahu wa hadaahu ilaa siraatin آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الزبط على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم barakallahu fiika sëriñ Fallou Diop ci alxuraanul karim kita gitu ya, tedd jori kon waajuram nañoo jox ko kadoo bu ko defee ñu daal di jëkkante waxtu wi daal maa ngi tudd Soxna Ami Kebe dëkk Touba sama waajur bu góor mi tudd Soxna Bintu Diop maa ngi jàngee daara internat Xidmatul Xadim bu Serigne Mame Bara Mbacke Touba Tobi Diop ma bëggoon leen a tari leen ci alxuraan karim. jërëjëf Soxna Ami ci nuyoo bu am boobu kon gannaaw bu nuyoo bi ngeen ñu leen ci ayatul xuraan yi bismillah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 يعبدون ولا sadaqallahul azim barakallahu fiika jërëjëf ñu ngi sàkku ci way juróom mu ñëw jox ko neexalal soxna Amy Collé Seck yow it mën ngaa daal di ñëw nuyoo soxna Amy Collé Seck asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi tudd Soxna Ami Kolle Seck docteur bi Diop sama waajur bu góor mu ngi tudd Sëriñ Ibrahima Seck sama waajur bu jigéen mu ngi tudd Soxna Ami Diop maa ngi jànge daara internat Xidmatul Xaadim Sëriñ Maam Bara Mbàkke Tuuba Toob tari leen ci Alxuraan Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم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 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن صانئك هو الأبتر صدق الله العظيم

góor ma ngi tudd Serigne Mbaye Diop sama waajur bu jigéen ma ngi tudd Soxna Awa Ndiaye maa ngi jàngee daara internat xidmatul xaddim bu Serigne Mame Bara Mbacké Touba bi Diop ma bëggoon leen a tari leen ci alxuraanu karim jërëjëf soxna Ndoota ci néew ba am solo boobu ñoo bëggoon nga tari ñu gannaaw طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

mangi jangé jàngee daara internat Xidmatul Xaadim bu Sëriñ Maam Touba Tour bi Diop ma bëggoon leen a ya, tari leen si alxuraanu karim. jërëjëf soxna Fatou Soda ci ñu bu am solo boobu. gannaaw ñu yoru ngi ñu ñu baax na. bismillahi wal qalami wa ma yasturun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 تستكبرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله

maa ngi jàngee daara internat Xidmatul Xaadim bu Sëriñ Maam Bara Mbàkke Tuuba Toobi Jóob ma bëggoon leen a tari leen ci alquraanul karim jërëjëf iya, iya, iya, soxna Mbàkke ñu bu am solo boobu kon nga jàng ñu bismillahi rahmani rahim yasalunaka anil anfaal bismillah

أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 妈嘞！

Hadi bu diga noktu do sahna penase. Mangi jange dana enta na fen matu kadu musali mambaru baki. Tuba to bijo. Mabagol dana indi den kane sirin tuba. ya. Ba bismillah indi mini kane sirin tuba. Kala rasulila. Watan kadiba ya ekuan. Afdal min Quran sirin tuba ahmad ay minna.

sa moroom doomu aadama di ko defal ko te loolu ñëpp si nañ kon nañ bàyyi di wax ni bu ko jëw jëw baaxul wax di ko dëgg lool kon jërëjëf soxna Diop soxna Diop yow ñu ñëw indi ñu wa rahmatulahi taala tudd Soxna Diop dëkk Tobi Diop. sama waajur bu góor mi ngi tudd Serigne Mor Diop sama waajur bu jigéen mi ngi tudd Soxna Kumba Diop maa ngi jàngee daara internat Xidmatul Xadim bu Serigne Mame Bara Mbacké Touba Tobi Diop ma bëggoon leen indi leen ci waxtaan Serigne Touba. jërëjëf waaw indi ñu leen ci dénkaane Serigne Touba waaw. xaala Seexu Xadim fajtanidu fil ilmi yaa ikhwaani wa taati mawla bila tawaani man faatahu lil mu ma taati fa sawfa ya'lamu la dal mamaat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 يا من أتاني دون ضير خيره صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء والآل والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العذبلة وانشر علينا بركات البسملة وصل يا رحمن ولتسلم على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء والآل والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي خير باب فاتحة وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء والآل والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقره وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصل يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واشكر لجئي وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والقدر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

ndax man ndaw lu a texe day jaamu borom woote jëm ci diine muñ bépp lon ndaw day jaamu borom asamaan woote jëm ci diine muñ bépp loon ndeysaan këllëg wi jeex àdduna banneex baatam meex na doolu bu lislam yaatuna ku saguwal jeex àdduna këllëg ku ba neex ba tam neex na toolub lislaam yaatu na ku saguwal jeex faatu ku fàtte bàmmeel tànku nga kër la gu xatang na mugal yaatam meeti na waajal ka moom war na la ku fàtte bàmmeel tànku nga kër la gu xatang na مغذية مثلنا واجل قمم جف جوبك مولاي مجل جف جوبك مولاي مجل كمبل دي بادولنا مو يقتا قنبل كن الجنة kon nag mu baatu natal moo yàq taaxaan bul ko kon aljanna jëmal fetti kollëre waajul nañ ko foon jiirim bul koon nga daataan fetti kollëre waajun nañ ko fonk diirim bul maytul ma misik soolil ma pexe jox cal bépp yi saa suuxat sangam maytul ma misik soolil ma pexe jox cal bépp yi saa سوقت سقم ميت القادر دفليت قلتي أو جن باي لا قيسي دي لا دفلون ميت القادر دفليت قلتي أو جن باي لا قيسي دي لا دفلون قل أنا maa gën ci téere xol lay defar moom ngay jàng te foo dem diin qur'aana gën ci te foo dem boo koy jàng daf lay ràmbool daf lay may baat daf lay ràmbool daf lay may def ko lampu julli naanu julli naanu moom mooy soppe bi yàlla yal nañu yàlla waalam sa aljanna sa aljanna yi nu moom nawi tay ñu jub allah jaamu sin borom allah nawi tay ñu jub فقما داويتين وجود جاموس بهرا داويتين وجود راويان نمر ngeen jëf nu ñaanalee nu dajeeg ngërëmal guddi gi ñu yokk saayiran wa ba noppi nag nga suñu borom sëriñu ci sëriñ Tuubaa ñuy gën di ba noppi nag suñu borom gën leen a xirtal bu a baax a ci sëriñ Tuubaa ñu di ci xëy di ci gon saa su ne duñu xool duñu bëgg duñu gis lenn lenn lool jot a ko cee xanc jot ko cee am ci yow mii nag lalu ko gis yow mii nag lanu ko amee ndax yaa ko def ci ñoom. kon daal Mbacke. sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax am nañ mbégte bu baax a baax. man mii de dama koy sant bu baax a baax di ko gërëm. sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax Mbacke Balla di la sant bu baax di la doolee sant di la sant jamono bu nekk saa su nekk di la gërëm. ndax man. yàgg naa ci ay lool ne alhamdulilah rabbil alamin a yàgg na ci say loxo lool génn ci ay loxoom mukk te it alhamdulilah a ne du génn loxo mukk ndax daara jee di daaru tansil daara jee di daaru tansil nekkoon naa fa ab jàngalekat di fa jàngale yàgg fa lool nekkoon na fa ab jàngalekat di fa jàngale yàgg fa lool waaye damaa dem ba sama bi ma bi ma fay dem sama wóyjël na nag jamono ya ma way juróom moom mii di wax nee na ko bëgg ma leen lu may ngërëm rek laa bëgg ci moom waaye yàlla tawfeex ma defal mooy keroog ba ma koy jóge sëriñ bi dama gërëm nee sunu borom subhanahu wa taala gi ji mu ko defal mooy keroog ba mu fay jóge danga gërëm ma mu jóge fa nag ci sa ndigal demee nag ci sa di dox nag ci sa ndigal dem nag bopp bi daara. alhamdulilah rabbil alamin ne mi ngi sant bu baax ndax nee na lu ma am rek wala lu ma amee rek ci yow mii la. ne sant na la bu baax a baax seen cant bay dem daal déglu. Serigne Mame déedéet sëriñ Mame Bara noxoo kenn waay ànd ak moom noonu lay jëriñoo te it lépp loo ànd ak moom noonee rek ngay jëriñoo ci moom Mbacke Balla ñu ngi nga noonu lay ñaanal bu nga yàgg fi lool gën a wér liñ yéene lépp daal suñu borom man na man mbooleem lu nu am yéene bëgg ko lépp nga fekk ko te lépp doon ay tawfeex. jàpp gi ma jàpp yéen. ne lii ci. ne jàpp gi nga jàpp sëñ Moussa bi mii nee na. lu xew ci daara rek dana ma woo ne ma ñëwal ñu ànd ko ba mu jox. ne am yàlla dogal na ci daara ji. da nga ni ko. ñu ñu ànd ko ba mu jeex tàkk ñu ànd ko ba mu jeex moom mii sax bu ma wóor mboolem ñi mu àndal liggéey bi xam nañ ne suñu ali Aliou Bousso am na nu mu mel ak suñ bi noo xam ne mënuñoo dugg lenn lu mu bokkut. nee nee su déggul sa kaddu sax ñii ngi ñii bu bokkal daara ji xam nañ ni kat sëñ Aliou Bousso mii lépp looy yëngatu rek ah su ko yëgee xel yëpp ak xalaat yi danañ xam ni ali Aliou Bourké dana ci bay waram lol nak tawfiq la ci man ndax ñi fi jaaroon bari nañ lol ne lol nak tawfiq la ah ñi fi jaaroon bari nañ lol wallahi lazim daw daaw. ne wallaahi Daw. daaw fekk na mu jóge ci bërëb bi. ne fekk na mu jóge ci bërëb bi. waye biñ koy waaj lama ma wo woo ne ma sëñ ali Bousso lu mën a xew mom moy programme bi mënu ci ñak ne bi nu koy waaj. la ko njaga niko ko. ali lu xew bi mo ci ñak ndax bu ba dang koy and ak ñun diko def. ne bu ba da nga and ak ñun diko def loola ma ñëw defe ko na ma ko defe woon daaw. ne loolee da ngaa ñëw defe ko ni ni mu ko defe woon daaw. ren jii dama toog ba yàgg Abdou Aziz Seye mii li jënd sama numéro téléphone ba am ko woo ma téléphone. ne ren jii nag daa toog ba yàgg Abdou Aziz Seye mii li jënd ab numéro moom mii ba am ko woo ko ni ko bis mënoo cee ñàkk. ne ma bis mënoo cee ñàkk noon la ma ko wax. ne noon la ko waxee. kon loolu tawfeex la ci man loolu alhamdulilah rabbil alamin sëñ Aliou ne loolu tawfeex la ci moom daaru tansiil tari bañ fay def sa yu ñëwee programme bépp sama loxo leen daaru tansiil tari bañ fay def su diké lépp ci loxo mom mi ci lay nek mom sey Aliou loolu dama jàpp ne da am mbirum biir mu ko téye ndax serigne bi dama ma sa wax ne ma mag yow ñu tàqali ko alhamdulilah rabbil alamin jef ne loola mbirum biir la ndax dang ko waron dang ko ni woon sëñ Aliou yow mi dañ ma sa teqali ko loolu nag laa gëm ne moy indi yi ba léegi loolu nak gëm na ni moo andi ba léegi. ànd bi daa am lu ko lu ko lu ko fondé loo xam ne moo ëpp doole fuuf yi ñuy gis nii. ànd bi dafa am lu ko fondé loo xam ne moo ëpp doole fuuf li ñuy gis nii. kon daal Mbàkke nag ñu ñaanal ñu gën fee yàgg gën a wér. kon nag Mbàkke ñoo ngi sakku. nga ñaanal leen nee mi ngi sakku nga ñaanal ñëpp ñu yàgg fi lool te gën a wér. gën a mën a ànd ak yow liggéeyu Serigne Touba bi. gën a mën a ànd ak yow nag liggéeyu Serigne Touba bi. te at mu ñëwee rek ñu gis yokkute yu kawe te ñoo ngi koy gis bu baax. te at mu nekk rek su dikkee ñu gis ak yokkute ñoo koy gis bu baax. kon daal Mbacke kaddu yooyu la woon waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax na kaddu yooyu daal Mbacke sëñ Aliou ne moom la amoon yë yéen a yëkkati ko li nekk ci xolam lépp amna yene genné ko waye lepp and ak mbékté loolu rek la ne mbaké da na dikki dégtal lako ko. jërëjëf né no ngi leen di siaré bu baax. né ci laylatul mubaaraka ci guddi gu tedd gu mag gi né nga xamni guddi gu mag la. né do nit guddi gu ñu barkel nee guddi la it gu am dogalub yiw nee guddi la goo xam ne malaaka yi dañ ciy wàcc ànd ak jibril ba jant fenk nee xataa mat layil fajri nee loolu day alquran moo ko wax nasalul malaikatu ruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya حتى متلين فجري ني كون لولو ني بون امي توفيق ني دوندال غوديغي با فجر فنك با فجر فنك القران الكريم ني مو دوندال القران الكريم بي كوبي ني بي كورا بي لم ماتنا كون نك سيرن بي ني نوغي سانت يالله بو باخ di ñaan sunu borom nangul nu ne mboolem lu nu fi jëf ak lu nu fi yéene nuy ñaan nag ci réew mépp jàmm ak sutura ak barke sëriñ bi ne noo ngi am mbégte nag ak cant ak ngërëm ci mbooleem donga daara yii ne di sant nag tey gërëm. seen jàngalekat yii. seen jàngalekat yii. xam ne. nee nga xam ni. ci daara ji lañ ci daara ji la ñu jàngee. ba mokkal alxuraan. ba mokkal alxuraan. wëlbatiku di fi jàng wëlbatiku nag di jàngale. di beral nee di beral nag ak cant. ak ngërëm. ak ak ndokkeel. ak ndokkeel. ak cofeel. ak cofeel. ci sëriñ Alioune Bousso mii. ci sëriñ Alioune ak sëriñ Balla Diop. ak mi nga xam ni moo jiite daaray xidmatul xaddiim bu tobbi nee sëriñ Aliou day nit ku baax la nit ku yiw la nit ku gore la nit ku am korele la nee ba nu ko ay wuy way juróom joxe ba léegi melokaan wii mu mel moom rek lañ ko xamee nee bi mu làqee nag sunu ngërëm ban yóbbuwaat ko ca way juróom liñ fi doon sàkku jot na nee ñu ni ko li ñu ko doon sàkku jot na ko. mu ubbi daara. nee mu ubbi daara. di fa jàngale. di jàngale. di def def nee di def nii ñuy def tey. lépp ci daara ji. nee lépp lu xew ci daara ji. moom lañ ci jiital. moom lañ ci jiital. ba tey jiital. nee ba tey jiitam. moom lañ ciy jiital. nee ni mu jiitee tari bii. noonu la koy jiitee ca Touba. noonu la koy jiitee ca Touba. kon nag sëriñ baa ngi sàkku yéen ñëpp ngeen maase ñaanal ko nee ndax sëriñ Alioune Bousso nee sëtub sëriñ Mbacke Bousso la nee te sëriñ Mbacke Bousso kenn la ci sëriñ Touba kenn la ci ñi ko doon jàngaleel kenn la ci ñi ko doon jàngaleel kenn la ci ñim dénkoon diine ji kenn la ci ñim dénkoon diine ji kenn la ci ñim dénkoon boppam kenn la ci kenn la ci ñi ko taxaw kenn la ci ñi ko taxaw jërëjëf Bousso sëriñ bi ne waa dëkk bi sëriñ baa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seen taxawaay ak ci seen yitte ak ci seen farlu ak seen bëgg lu baax ak seen bëgg baax ak yéene ji ngeen am ci ñun ak yéene ji ngeen am ci moom ne xam nañu ko yal na leen ko yàlla fay te yàlla fulal leen ko nee di gërëm nekkoon ci daara ji ñii nga xam ni yàlla dafa dogal ñu nekkoon ci daara ji ba jóge fi ba jóge fi ak ñu nekk ci daara ji ak ñu nekk ci daara ji dajale yi ne ñoom ñu dajale teraanga yii yi ko ko jëbbal indi ko di ñu ko di ko jëbbal ngir lu yéwénal biir daara ji ngir nag lu yéwénal biir daara ji jox loo xam ne donga yi ñoo ci fas yéene toog. ngir ñu andi nag loo xam ne donga yi ñoo ci fas yéene toog muy ay basang. ay saabu yu ñuy ak saabu yu ñuy sangoo. ak satala yu ñuy jàppoo. ak satala yu ñuy jàppee. ak siwo yu ñuy sangoo. ak siwo yu ñuy bale yu ñuy bale. ak bale ngeen jëf jërë ngeen jëf. yal na leen yàlla barkeel. yal na leen yàlla barkeel. yal na yàlla suturaal. yal na leen yàlla taxaw. ne takk der yii nga xam ni. yàlla dogal na ñooy policiers yi. ba léegi. ne démb ba léegi. ñu ngi taxaw. ñoo ngi nii taxaw rek noppalu wuñu benn yoon nee fu nu taxaw fu nu geesu gis leen nee bu nu jiitoo ñu jiital ñu ñenn ñu topp ci ginnaaw boobee ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi nee garaat yi ngeen bëgg ak ndam yi ngeen bëgg ci école police bi ngeen nekk biir police Sénégal yal na leen ci yàlla jàppale yal na leen yàlla àggale ngeen am ci garaat yu kawe ngeen am ci garaat yi général ci barki Seexul Xadim yal na leen yàlla sàmm. yal na yàlla suturaal leen yal na yàlla barkeel leen ne yàlla nag gis na lépp te xam na li ci biir xol yi te li ci biir xol yi te dara ump ko te dara ump te yéene yi ci biir te xam na lépp kon nag sant na ñëpp gërëm ñëpp eh, sëriñ baa ngi tàllal loxoom ne bisimilah nanu jàng kon ne ñun ñëpp nag nanu fas yéenee ñaan. am ngërëmal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba nee nag nu tegu ci yoonu siraatal mustaqim sax ci lu baax di jaamu yàlla tey moytu safaan ba nee mi nga sant rakam ji bu baax Serigne Abdul Karim Serigne baa ngi lay mi koy biral ñëpp ab taxawaayam ci jëfam. akub taxawaayam. ak cofeel gu mu am ci moom. nee sëriñ bi ne baas yii fi sëriñ Abdul Karim andi am na ci yoo xam ne sëriñ bi ko moomal boppam. ma nga Touba. sëriñ Abdul Karim moo ne bu fi benn baas ñëw. loo soxla nag maa koy def. Mbacke jërëjëf. ana Sidi sëriñ bi sant na la bu baax. sant waa Xidmatul Xadim yëpp. la tuddee. nee buñ la tuddee. tudd soxna Magat. tudd soxna Magat. tudd soxna Jaara. tudd daayira soppee maam Jaara. tudd nag daayira maam Jaara soppee maam Jaara yi. kon am nañ yéene tudd ñi ci topp kon am nañ yéene tudd mbooleem góor jigéen mag ak ndaw ak waa topp bi gépp. di ñaanal nag sunu Baye Ali Fall. yàlla wéral ko. yàlla wéral ko. fi. yàlla yàggal ko fi. ñi mas a jiite topp nee ñi mas a jiite topp bi. ñi ni fi nekk ak nekkinam. ni mu fi nekk ak nekkinam. yàlla na fi topp bi doxe gën a yokku. yàlla na a màgge. yàlla na doxe fi gën a màgg ay tawféex yal na gën a wàcc tob bi nee ñi fi jóge yal na yàlla wàcc yërmande ci ñoom yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla tabal àjjana ci barkeb Serigne Touba tàllal leen sëriñ bi tàllal na loxoom mi ngi ñaan na ñëpp ñaan na ñëpp tàllal te kenn ku nekk li nga bëgg nga fas ko ci góor ak jigéen mag ak ndaw bismillah amin amin Mbacke Amin. serigne Lamp serigne Lamp jërëjëf saa bu ñu tàntee fii rek nga ñëw fekk nu fi yàgg ñi nga andal serigne bi gis na la yegg nako ko Lamp. waaw bi ne Lamp kenn la ci